te ñëpp yërëm la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax booba nag ñoom ku ci yërëb jirim da ngay gaaw rek profité lekk lim am euh, euh, bu ko defee nag moom lay wax si nii yàlla ne waatoo na ngeen jox wa jox leen alyataama jirim yi amwaaluhum seen alal ya wala tabaddalu bu leen wattee alxabiisa alal ju bon ja muy alal ju xaraam ja bi tay ci alal ju dagan ji alxabiisa alal ju bon ji bi tay bi ci alal ju baax ji alxabiisa alal ju lew ji bi tay bi alxabiisa alal ju xaraam ji bi tay bi ci alal ju lew ji wala taakuloo bu leen lekk amwaalahum seen alal yi ñoom jirim ya ilaa amwaalikum di ko tàpp jëmee ko ci seen alal pour mën koo lekk jub jublu ci boole rek ngir mën a mën a egg ci alal ja innahu naka lekk alal jooja di alalu jirim kaana nekk na xuuban di bàkkaar kabiran bu mag lekk alalu jirim bokk na ci bàkkaar yi gën a mag yonent bi bu muy lim muubiqaat ne ijtanibu sab'al muubiqaat ashirka billahi wa sixra wa qatla nafsi lati xarama laa ilaa bilxaq wa akla riba lu mu ca teg wa akla maalal yatim kon fa lay tegu kon ci muubiqaat yi la bokk waaye en même temps tamit ci kabaayir tamit la bokk kon alal li jirim baaxut bu ko kenn lekk nit bu xasee dee rek lépp lum joxe gutoon dépense bañ def ko dépense kenn wut puccat dépense moo yoreel ay soxnaam dëkk waaye waaye bu mu paase ñeenti weer ak fukki fan seen teen ji jeex ñu ñibbi fañ war a ñibbi alal ja la ca des lépp muy dëkk waaye alal jam bàyyeeg lépp jirim ya ñoo ko moom doom yaag bu fi bàyyee bàyyeeg yaay yaag soxna ya su ko defee ñoom ñoom moom alal jooja lépp muy seeni àq bu ci kenn dugg di ko lekk bu ko ñenn tamit di lekk bàyyi ñenn ña innahu kaana xuban kabiran aay ji tegu ci nag wa xiftum allah tuqsitoo ku baax dañ laa dimbale saxaaba yi li tax ñu gën ñëpp yonent bi rek moo leen dimbale bu leen yonent bi dimbale wutoon ñu xam ak ñëpp nun daan def dañuy daan amee jirim yëg na jirim bi am na alal ñu ne jirim bi comme dafa bari alal te jigéen la sharia bañut ñu denc ko xaraamut ñu ñu dem denc ko pour profitoo mën a lekk alal ja waaye duñ bëgg ku ci bokk ñëw di leen raf ñu ne ah, buñ ko mayee keneen dafay dem sëy foofa yóbbuwaale alal ja te kat buñ ko takkee duñ nangoo matal canga suñ ko takkee même bu canga matoon xàq yi ñu ko war a jox ci dëkkoo ko dëkkal ko faj ko duñ ko def ñoom li leen ko tax a takk yëpp mooy mooy mooy mooy mooy alal jarat loolu nag valable na ci ji jamono mooy nit ku liggéey ba bëgg a dee dee bàyyi fi alal ju bari ak doom yu ndaw borom daraa yu rafet yi rek dem sànni buum soxna sax te jigéen ñi li ma jaaxal ci ñoom li man ci seen jëkkër yi ñaareel mënuñ ko ci seen jëkkër ju njëkk ja su ko defee ñu jël xalal li waa ji lem liggéey yooyu yëpp di ko di ko di ko di ko ñeñal gannaaw seen jëkkër yi ñaareel ji su ko defee nag léegi ñu mu profitoo lekk alal ji yëpp wekki photoy waajee nag jël photo waaji jëkkër jëkkëri ñaareel ji teg ko fa loolu day am te loolu dafa bari am na fi góor ñoo xam ne dañoo ñaaw jikko ku dee bàyyi fi alal rek ñu sànni la buum ba ngay tëñ ji sax lañu ñu commencé sànniwaale kàddu pour mën caa profitoo am ne damaa ñëw pour xuufal la njaboot bi fekk dafa bëgg ñëw xuuf li nga amee woon yëpp ak sa jëkkër ji amoon lekk loolu du jeex ci suñu société yu bëri na loolu nag dafa amoon jamono jooju ci arabia ku sa bàyyi dee bàyyee lay jirim nga nekk bàyyi taxam wala nga nekk nangam wala nga nekk koo xam ne war ngaa mën a denc nga profité rek ne dama koy sànni léeg-léeg nga gis ko denc juróom-ñetti jirim juróom-ñetti soxna nga amee ko léegi léeg nga gis ko amee fukki soxna ca ñëpp. boo leen seetee ay jirim lañ xam nga ku ku ku ku denc nag fukk yoo xam ne nii seen bàyyi am na lu leen bàyyee foog nga am ci dara boo leen boolee da nga da nga woomal yàlla nag ne loolu jaaduwul te nag su fekkee ne jirim bi bàyyam dafa dee moom jirim bi mu nekk ku ñaaw donte dagat na la boole ko amul dara nga gaaw soloxe ko ku ñëw rek nga may ko ko ne moom na génn kër gi rek dafa ma yokkal fere waaye bu rafetee boole koog am dara nga ne du ma génn yàlla nag ne loolu xaraam na su fekkee jirim bi dagan la sharia may la nga takk ko soo ko takkee àq yi war ci moom mënoo koo matal bàyyi ko te nga dem takk yeneen jigéen ñi ñu nekkul jirim yeneen jigéen ñi nekkul jirim nag bu sa doole mënee ñaar takkal bu mënee ñett takkal bu mënee ñeent takkal su la wóoree ne mënoo ko nag ah kon nag dëppal nga yem ci benn soxna benn soxna ngànt rek la lislaam may ku am ngànt moo ko tax a jóg waaye ku amul ngànt waroo am benn looloo ko tax a jóg lu waral loola yërëm jigéen ñi rek waaye jigéen ñi gisee wuñ ko noona ñi seen xam-xam màcc ci wàllu takk ak ci wàllu kalkin dañuy wax ne at mu jot liy judd ci jigéen moo ëpp liy judd ci góor am sa soxna mucc lu ma am jigéen moo ëpp li ngay wax ne li am nga góor liy judd ci jigéen société boo dem ñoo ëpp liy judd ci ci góor muy benn ñaareel ba tamit société boo mën a dem lii dee ci góor par at moo ëpp lii dee ci jigéen kon su fekkee ñoo leen ëpp lu ñuy dee te ngeen ëpp ñu lu ñuy jug kon li muy tekki ñoo leen ëpp kon bu loolu amee ba pare en même temps société boo dem tamit bokk na fa ñu fa gën a néew doole jigéen ñi yàlla moo tax mu dëngale koog jirim ne jirim comme dafa néew doole dañ ko war a dimbale war koo dëfal war koo tàpp war koo dimbale ci lim am noonu tamit la jigéen mel jigéen dafa néew doole dañ ko war a tàpp war koo dimbale yàlla ne comme nag yéen da ngeen a néew ba pare boole kook néew le en même temps ngeen nekk ñu ëpp ci société bi su boobaa dama leen a yërëm boole koog sax euh, da ngeen a bëri lu ngeen ni am ngànta léeg ngeen am ngànt reegal léeg-léeg ngeen am ngànt gësin léeg-léeg maanaam tamit ngeen feebar naa nga ak yu mel noona kon damaa bëgg jigéen ñi nga xam ne yéen jigéen ñi yéen a góor ñi damaa bëgg góor ñi ñëw séddoo leen pour dimbale leen moo tax nag yàlla ne yéen góor ñi dem leen ngeen séddoo gi jigéen ñi nga xam ne ñoo leen ëpp ci société bi su boobaa nag séddoo gi kenn ku ne na ca xene lam am rek lam attan rek ndax bagage bu daanoo ci pénc mi ñu woo xale yu góor ne dem leen ngeen roñ bagage bi dugal ci magasin bi ko attan ñaari saako xenul ko attan ñetti saako yenul attan ñeent yenul ko attan benn tamit yemal ci benn bi kon nag dañu ne ko jigéen ñi marchandise lañ kenn ku ci nekk lan ca lan ca attan rek yenu ko waaye bu yàlla dogalee yow nga attan ñeent yenu benn saako yaa tax yaa tax bagage bi fanaan ci biti nga attan ñetti saako yenu benn wala nga attan ñaar yenu benn loola baaxut kon yàlla dafa leen a yërëm rek ndax yàlla ku bëri yërmande dafay dafay yëg ne ñu réer ñëpp ci société bi ñu xam ñëpp bu ñu leen seddoo woon réer jeex ñu ñàkk ñëpp ci société bi ñi ñi am ñëpp bu ñu leen séddoo woon ñàkk jeex ñu feebar ñëpp ñu wér ñëpp bu ñu leen séddoo woon feebar jeex li fiy dof yëpp ñu nekkul dof bu ñu leen woon dof yi jeex waaye jigéen ñu néew doole ñii góor ñu am doole ñii bu ñu leen séddoo woon